mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi di nuyu mag ñi di nuyu ndaw ñi di leen sant bu baax ci seen détermination ak seen taxawaay bi ngeen am te saa su ne ngeen taxaw di ko wane tey nag wax ji du gudd ndax euh, ginnaaw bu ñu jiitalee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général de Mourides ñaan yàlla mu yàggal ko fi te wéral ko ah di ñaan ñaanal njabootu Cheikhul Khadim gépp di ñaanal njabootu Cheikh Ibrahima Fall ndax fii ñu nekk ci Mbàkke tey xam ngeen ni fii la njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall féete ak sunu mbokk yi jàngu bi nga xamante ni fii ñu yëkkati sunu kàddu ñu ngi ñu ngi ko ñu ngi koy dégg comme ni ko secrétaire général waxee. tey nag dafa am lu xew ci réew mi euh, muy lu lu doy waar lu ànd ak euh, aw naqar ak tiis ak yaakaar bu tas te li ko waral lépp di ay tappale ak ay njuuj njaaj yoo xamante ni yàgg na ci réew mi waaye dafa mel na bii yoon nag dafa mel na dafa dem ba dafa jéggi dayo président Ablaye Wade ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wér du nuyu sunu euh, candidat frère président Karim Meïssa Wade di leen wax ni nag euh, forfaiture bi nga xamante ni dañ ko jël teg ko ci kaw président Karim Meïssa wadd sunu candidat te njëkkewul tey point yooyu la section yi nekk Touba ak ci communes yi ak fédération bi dajaloo tey di ko di ko dénoncé dénoncé dénoncé bi nag day ànd ak ay leeral ay ay ay précision ku ne xam na ne élection deux mille dix deux mille dix neuf le président Karim Meïssa Wade defoon na déclaration bind pour ne man bëggatuma nekk nationalité française 2019 bi Karim déposé candidature ndax biñ koy dàq ndax tuddoon nañ ci nationalité déedéet dañ ne ko mënuñu accepter sa candidature parce que nekkoo ci liste yi ñu dem ba mois d' octobre bii passé le 28 octobre bii passé 2023 Karim Wade dem ca consul bi nekk ci ambassade ambassade France bi nekk Qatar le 26. octobre 2023 daal di def déclaration ne man bëgguma delloo naa sama nationalité française bi nga xam ni maa ngi ko amee ci sama wàllu yaay bul fàtte ne Karim wuti wut double nationalité bii national dafa juddu am ko ci ndey am ko ci baay wutiwu ko da ko donn bi ñuy déplacé déposé dossier conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel laaj ñu nit décret déclaration sur l'honneur lañ ko la mu indi kayit boobu ñu ko jox ci ci ambassade Qatar dugal ko ci dossier yaakaar naa dossier bu complet wuloon duñu ko jël Karim Wade mun ta pes état wu France mënu leen a mboq mënu leen a njuqi ni leen faw ngeen atteel ma processus la mais yàlla mi dara tawul décret bi far génn le 16 janvier ñu dépp yóbbu conseil constitutionnel le 17 janvier mu nekk fa le 17 le 18 le 19 ba le 20 ñu doog a bi ñuy atte ñu ubbi dossier bi gis décret bi ñu falan ko teg fële Thierno Alassane Sall indi aw kayit waxam ci ordinateur la ko tàppee indi sans constat de huissier d'état un document ki n'est pas constaté par un huissier d'état n'est pas valable devant un juge d'instruction amul valeur juridique juge bi ko jël ci la corruption tàmbale droit laa leen wax de kenn du ko dindi juge d'instruction bu jël document bu ñu constaté wul par huissier d'état est un juge corrompu ne leen benn décret bi ñu France jox ne Karim Meïssa Wade n'est plus français décret la ñu publier ko journalu France mais bi ñu ko joxee ñun dañoo jël huissier de la constaté ko doo ko jox juge bi document booy indi ci kanamu juge d'instruction dafa war a dafa nekk un document doit être constaté par un huissier de part c'est clair ñu wàññeeku gis ne am na ñoo xam ne waruñu woon a jàll ndax ñu ngi leen du tudd ci ay parti politique yu ñu dissoudre ta parti politique ko ci bokk ñu dissoudre parti boobu ba nga toog ñaari at ak genn wàll doog a mën a dugg ci ay élection ñu jàll Karim Wade mboolem li ñu ko laaj lépp mu indi ko teg ko ñu falan ko teg ne ci lañ xam ne nag quand fulu parce que yaa ngi lu quand que yaa ngi lu ci la ubbi suñu bët ndeke scandale bu rëy ndeke sujet yi kii ñuy wax seex Tidiane Koulibaly moo ko Abdou Latif Koulibaly mi nga xam ne mooy noonu Abdoulaye Wade di noonu yoonu murit ndeke ñoo bokk ndey ak baay ñu gis ne ndekete foofu lu toblu ci ñetti milliards yu teg génn na ñu jënd ci ay juge yu nekk conseil constitutionnel waaw gars nit koo jàpp ci càcc di ko dénk sa caabi kër yow jàpp nañ la ci ndoxum te corruption yi boo gis ñu naan nañ dem ci élection nañ dem ci élection parce que ñi corrompre bis buy feeñ yooxu dana jóge fu ngeen ko foogut ndoke loolu lépp ñi ko def mooy ab groupe bu àndandoo complot def ay ay ay ay ay réclamation réclamation yi visé wuloon kenn ku du Karim Meïssa Wade waaw groupe parlementaire enquête euh, groupe parlementaire ba enquête groupe parlementaire lan lañ ci yàkkamti man li ma mënul comprendre waa OMS yéen da ngeen wax ne ay juge ngeen ay magistrat ngeen kan mooy chef suprême de la magistrature dama leen koo laaj wax leen ma turam. c'est le président de la République. mais pourquoi waa OMS na ñoom Macky Sall leen a daan mun mun amul droit def di def enquête parlementaire Macky Sall jël ay matuwaay moom mi ñu dénk réew mi Macky Sall même bu ñuy def ci élection Macky Sall mooy président de la République du Sénégal ba léegi. xanaa càcc gu rëy gii Macky du bàyyi mu jàllale ko mais nit ku sàcc nan lay organiser ces élections. d' accord ngeen ay sàcc organise suñu élection ñu ngi ànd ñun ñëpp sec section yi secteurs yi fédération yi nekk dans l' étendue nationale et diaspora ji jàppale sunu député yi enquête parlementaire bi na àgg na leer ñu jàpp sàcc yi teg ci table suñ leen jàppee li yoon wax ñu def ko loolu moo gën coow li nañ dem ci élection mboolem ñi nga dégg ñu naan nañ dem ci élection parce que dañoo bokk ci nduxum yi Amadou Ba moo ne ci ginnaaw Thierno Alassane Sall waaye dañoo daanu ndax lañu leen jàppe ñoom seen loxo da caa taq rëpp tey jii su fekkee dëgg lañ bëgg a wax benn sénégalais bu ñu wóor ci candidat yi ne moom moo nekk exclusivement nationalité sénégalais c'est Karim Wade moo fi indi dossier ku Karim Wade juróom ci ñoom ñii candidat yi jàll naan nañ dem élection nañ dem juróom ci ñoom ñii seen double nationalité ne xuma ak moom waaw loolu duñ ko lijjati déet laaj naa leen conseil constitutionnel nee na ko tu dois être exclusivement sénégalais pour pouvoir être candidat alors léegi Karim Wade moom indi na décret teg ñëpp xam nañ ni moom dootul sénégalais dootul français sénégalais la waaye juróom ñu yor seeni i passeport conseil constitutionnel du ko leeral kumba am ndey kumba amul ndey jii lañ ñu ci ci élection dama ne waxuñuy report dañ nañ nañu nañu réintégrer président Karim Wade ci liste yi ñu dem ci élection wala élection du am nañu réintégrer président Karim Wade mi nga xam ne moom dong moom la candidature am leer nañ nañ nañ nañ na bëccëg keneen ku dul moom sa bos ndoxum na ndax juróom a ngi ci am seen ay nationalité euh, euh, euh, double nationalité kon nañ leeral lool réintégré ko ci liste yi ñu dem ci élection ta waaye bu ñuy dem it nag na leer nag enquête parlementaire bi pare ñu tas conseil constitutionnel ndax ay sàcc lu ñu organisé élection ñu ngi beesalaat kàddu foofu la ñuy tëje mooy groupe parlementaire bi dama ne la secteur yeeg section yeeg fédération PDS yëpp ñu ngi seen ginnaaw leen jàppale di xaar ak coalition yi nga xamante ne mooy coalition Karim 2024 ñu ngi nii toog kenn ku ci nekk sa représentant ngi nii teewal la fi yaakaar naa lii ma joxe doy na sëkk ab tegtal parce que àddina bépp tey bi mu ubbee journal journaux yi àddina bi BBC The New York Times ba Bangladesh seen journal bind nañ tey ci conseil constitutionnel Sénégal bi ñu jàpp ci ak càcc ak corruption loolu dafa garaaw kon loolu du question ay Karim Wade la ëpp na Karim du question PDS ëpp na PDS ay comploteurs ñoo ne ci ginnaaw ci réew mi di complot askan wi di wor ñuy ñaan na kilifa yi diine yi di ko commencé kuy sunu yaakaar muy sëriñ Mountakha Mbacké nañ jóg wax ak ñii di ndoxum réew mi balaa réew mi dugg ci guuta gum lu mën a génn ndax lii gravité bi fu ko ni takk weesu na ko ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm. mun naa ni mun nañ ko tuddee naqar waaye nag mbégte la ci jotaay bi ci kaw bi ñu amee sañ-sañ ak kàddu ngir fas yéene fésal sunu xalaat. ak sunu yéene ci li nga xam ne moom mooy réew mi fi ñu toll nag ah, président wax na ko secrétaire général wax na ko mën naa ni doyoon na sëkk waaye nag monde rural bi tamit dañ ci am wàll cër bi ngeen ci joxe vraiment gis nañ ko ñu tënku ci li waral ndaje mi président wax na ko ci biir waxam mooy élection yi nga xam ni moom la ñuy waajal le vingt cinq deux mille vingt quatre li si xew lépp adduna bi yëpp gisandoo ko Sénégal yëpp gisandoo ko parti démocratique Sénégal nag am ci naqar boo xam ni ci li nga xam ne noonu la conseil constitutionnel ci li nga xam ne moom mooy atte bi mu joxe keroog le vingt bi passé parce que sëñ bi leeral na ko président wax na ko si tubaab defe naa ni ñëpp dégg nañ defe naa ni. président Karim bi muy déposé candidature bu ci boolewul woon kayit bi firndeel ni delloo na nationalité am dossier boobu ñu ko jël parce que kon dañ naa ko dossier incomplet kon bi ñu vérifié ay dossier yi mu war a déposé yépp mu mat ñu recevoir ko ñu jël ko mu jàll prénance ñu nangal ko candidature mu versé caution président moom lañu soxla parce que dañu koy gunge en 2024 incha allah mu dem lii ñu ko tey candidat yi nga xamante ne mooy 21 yi ñun yëpp da ci Karim nangu kenn nangu ko ci bàyyi ween sama yaay nekk tubaab sama baay nekk sénégalais man nangoo bàyyi sama nationalité français ngir Sénégal journaliste dama bëgg ñu dellu tuuti Karim may sawal tuuti Karim Sénégal bii fi la jàngee ay doom juddoowul sax France fii lañ juddoo ñetti doom la ñaari Sénégal lañ juddoo ku ko gën a bëgg Sénégal jamono yi dañ ko fële. Karim Wade jur na doom doom lañ ko mënul fii Sénégal Amadou Ba nag amagul combat tey jii lay door am combat bi soo ko Karim soo ko waa Touba nit da ngay joxoñ te Amadou Ba mi ngi door a am problème bi mu jëlee combat bi fépp ko Touba ne waa Touba lay xeexal ndax nit fa mu yaakaar bu nekk ci page war a wax ci mbir mi avant deux heures mu fuite corruption li sang bi wax Mbàkke ñëpp dañu ah, ah, ah, gis nga ñun Mbàkke lañ dëkk ak Touba ñoo xam lu leen neex lañ def combat bi ñaar la politique la ak ak mouridisme ak justice ndax dañ ko ciy boole waaye fii ku fiy campagne da nga wax lu set incha allah rabbi Mbàkke ak Touba danañ mobiliser suñu ay force danañ xeex ba liñ teg Karim Wade ñun luñ ci góole gan ko ndax duñu yàq duñu taal waaye suñu kàndaat falaat laaju te waa Mbacke koo xam ne si nag yaa ngi ko yaa ngi ànd ci loolu bii ba nga ñëw campagne incha allah bu leen kenn di gëmloo wala mu leen di wax ne Karim Meïssa Wade dafa def leen erreur wala dafa fëti déedéet conseil constitutionnel ci boppam ñoo def lu leen neex jëfi maa tey kon nag li war mooy ci toli parti bi jëfi maa tey jëfi maa tey moo koy topp ndax conseil constitutionnel li ñu àtte ñëpp xam nañu lu yoon bi ñu njëkk mooy da ngeen di xool rek double degré de juridiction bi am ci entre mbirum Ousmane Sonko ak mbirum Karim Meïssa Wade ma leer leen ko tuuti rek maa ngi koy ndax Karim Meïssa Wade dañ ne ko yow bi ngay déposé sa dossier dafa am lu manqué waaye laataa ñuy wiidee dossier bi ko war na montali ñëw na waaye da nga tardé. moo tax dañuy invalider sa candidature ñu ne Ousmane Sonko ñëw dañ lay invalider waaye bi ngay déposé dossier lépp matoon na waaye bi ñu demee bala quatre avant la fin dañoo jot jugement buy wane ne yow mënoo bokk ci élection yi xool leen acte bu contradictoire boobu ñaar yooyu da koy jàngat yéen journaliste yi wax ko Sénégalais yi comprendre ko loolu fan la war a mën a amee